gaal dëkku géy ne njaay mooy sunu gaal Merci beaucoup, merci beaucoup, mesdames et messieurs, bonjour, où que vous soyez, qui que vous soyez, je vous dis respect total, connecté des régions du Sénégal, un peu partout à travers le monde entier. Je vous dis bonjour, welcome to PND Show, euh, c'est Toby. Alors aujourd'hui, je suis en compagnie de mon jumeau, lui son nom c'est J, moi c'est Pi, ça fait PNJ, les jumeaux de la TFM, PNJ, les jumeaux de la RFM, PNJ, les jumeaux de Mami Ange, Mami Ange c'est la maman aux jumeaux Yaay Seex la donc képp ku Yaay Seex yow laa ñu ko nuyu ainsi que toutes les femmes du monde entier bien sûr toutes les mamans branchés en ce moment en train de suivre les PNJ. On vous dit euh, salut, on vous dit bonjour, on vous souhaite de passer une agréable journée en notre compagnie, bien sûr, la TFM. Bonjour jumeau. Bonjour moi. Comment il va? T'as Le moral est bon? Ça matinal aujourd'hui ou bien comme d'hab? Ouais, comme d'hab, comme d'hab. Comme d'hab. Comme d'hab. Qui est le premier à venir à la télé comme d'hab? Non, c'est une question que je pose. Qui est le premier à venir à la télé comme d'habitude Comme d'habitude, c'est oui. toi. voilà merci kon gars yi ñoo ko déggandoo saa yu ñu amee émission télé saa yu ñu amee émission rajo le marié puis moom mooy njëkk ñëw le célibataire est-ce le... que vous trouvez ça normal est-ce que vous trouvez ça normal mais le pourquoi parce que dafa bëri bagage léegi le temps may jàpp bagage yi yëkkati platine yi saagu machine bi fil yeeg rallonge yeeg yooyu xaw euh. <laughs> la question je vais poser ça à euh, notre chargé de prod la question je vais poser ça à Vieux notre réalisateur et à aussi notre technicien sans pour autant oublier Ibou le caméraman bien sûr le mention spéciale à lui c'est lui qui va coacher Euh, l'émission mention spéciale à l'équipe connectée depuis Almadi vieux so mu wax euh, Almadi madame Guissé waaw connectée depuis Almadi mention spéciale à elle Eva xale xaalis bien sûr mention spéciale à elle euh, moom mooy gérer d'habitude les enveloppes qu'on a l'habitude ah, d'offrir non tey amuñu enveloppe mais tey dafa am lu am ah. euh, le micro tu, ton ton enveloppe mais tey dafa am téléphone xam nga luy téléphone maanaam tey day am direct Ah, test de fidélité la ñuy xool. xamul li test de fidélité <laughs> maanaam on a l'habitude d'offrir des enveloppes. des enveloppes gars yi di woote. mais tey benn benn defi laa bëggoon lancer euh, sénégalais yi. genre ne leen tey damay ubbi sama sama sama serveur. damay ubbi sama serveur damay joxe numéro yi en direct. ok voilà képp kuy woote waxtaan ak pii waxtaan ak ji. laaj seen son seen ay clé. fa laay ñëw falaay ñëw. maanaam képp kuy sénégalais képp kuy africain nga nga nekk à l'écoute euh, Euh, en train de regarder aussi l'émission euh, depuis et de J en direct au niveau de la TFM alors c'est un défi que je me lance. Okay. on a l'habitude d'offrir des enveloppes ne ah gars yi képp ku dugg dinañ la may teel dinañ la may. dinañ la teral quoi voilà dinañ la teral mais tey damay xool ñi nga xamante ne tey dinañ dugg sans enveloppe. ok maanaam par amour moo tax tey ñuy dugg. PNG ok on regarde les émissions de PNG on aime. yeah on appelle. ok on appelle pour. pour aujourd'hui dire félicitations, pour encourager, mais pas aujourd'hui appeler pour dire euh, je veux ceci ou je veux cela. Aujourd'hui, je veux un appel qui vient du cœur. ok je vois voilà un ma si yi nga xamante ne tey ñi nga xamante ne ñu ngi ñuy seetaan dinañu mën a joindre en direct bien sûr euh, pour leur permettre de avec leurs animateurs parce que saa yu émission euh, jeexee on voit beaucoup de messages sur le portable le 77 244 22 22 des personnes qui nous suivent la possibilité de nous appeler en direct et de communier avec vos animateurs Star Mostopi. Donc, euh, il y aura aussi de la bonne musique qui va nous accompagner. Mhm. Voilà, donc, euh, si tu me le permets, on va réveiller aussi les enfants. Comme d'habitude, l'hymne national, des... national, national des Désormais, l'émission des jumeaux PNJ à la télé, tous les mercredis, mm. tous les samedis, on réveille tous les enfants. Ah, ouais. Donc, comme quoi père de famille ou la mère de famille, amga ay dom sen kër yee parce que PNJ ne leen xale yi ci émission yi lañ bokk donc tey Euh, J, si je ne me trompe pas, c'est avec ça qu'on va démarrer notre émission. Ah oui, c'est clair, c'est clair. C'est bon, c'est possible. Coco. C'est possible. Coco. OK. Coco, Alors, Dylan Wahne, Tamit, euh, vous avez vu en bas, euh, ici de l'écran, il y a un ballon de foot, Mr. Jim. Euh, Aujourd'hui, il y aura un grand match qui va opposer les animateurs contre les DJ, troisième édition. Tous les animateurs du Sénégal, nous, contre tous les DJ du Sénégal. On a un match ce soir de 20 à 22h. Ils seront là tout à l'heure, quelques animateurs, ils seront là tout à l'heure, quelques DJ bien sûr. fii ñu invité leen euh, si plateau bi ñoom ñu wax ñu naka la ñuy préparer euh, seen match bi euh, tey ça sera au niveau de Guédiawaye donc waa Guédiawaye pare leen ko na ñu nar a dalal jiloo téye nii. mais jumeau lii lan la. Uh-huh. ah. yellow vest voilà yellow vest. Uh-huh. ok. donc tey est-ce ku gagné tey si match yi duñ ko jox mu yóbbaale yellow vert. yellow vert waaw mooy doon cadeau bi. mooy doon cadeau bi comme ça nga yóbbul ko sa soxna ñu yóbbul ko seen copine yi même xale yu góor yi sax. dégg naa mais yéen su ngeen gagné kan ngeen koy yóbbul. war nañ si mën a di euh, di woo. yéen se yéen yéen yéen DJ yi. DJ yi yéen DJ yi nga xamante ne DJ c'est des célibataires. ah bon voilà. mais ça yéen ëppale woo leen ñu dara de yéen marié nii. c'est-à-dire. leen ñu ëppale wuñ leen dara. ëppale woo leen ñu dara on a une femme on a des enfants nga ne ëppale wuñ leen dara c'est-à-dire. yow jàppal loolu rek gain. ok jàppal loolu rek. saa ma jàpp loolu rek waaw jàppale kon yéen ñu jàpp loolu rek ah. donc on est en compagnie de Yellow Vet qui nous accompagne tous les mercredis qui nous accompagne tous les samedis alors euh, pour vos crèmes mesdames et messieurs seen ay diw. Euh, fan yi euh, su ngeen génnee ngeen sentir ne da ngeen weex war ngeen mën a jël diw yi ngeen diw aussi su ngeen di sangu aussi y a des savons euh, y a des gels de douche aussi pour vous accompagner bien sûr pour une peau meilleure alors sur ce monsieur si c'est bon Coco sérieux waaw Tanor da ngay tijji samay son

aux enfants du monde entier. Je ne dis pas du Sénégal, d'Afrique, mais du monde entier. Parce qu'aujourd'hui, l'émission est suivie un peu partout à travers le monde entier, un peu partout à travers les réseaux sociaux. Oui, parce que Eva Diamono ji mu ngi seetaan ak Bébé Grâce si Facebook bi donc euh, su ngeen euh, connecté wooy euh, mun ngeen ñu seetaan en direct bien sûr au niveau du Facebook. Alors ceux qui en ce moment sont en compagnie de leurs enfants, envoyez un message, faites plaisir à vos enfants avant de prendre le direct.

Aïcha. Voilà. Donc, Donc sur ce, moi je veux seulement des messages mais J, il veut vous entendre en direct. Alors, vous êtes en train de nous regarder, vous avez envie de faire plaisir à vos enfants. Appelez-nous, nañu PNJ. Bonjour, vous allez bien? Mon enfant est là, ma fille est là, mon fils est là. Il ou elle s'appelle comme ça et puis j'ai envie de lui faire plaisir. C'est possible, faites plaisir à vos enfants. très rapidement, viens. Jox ma numéro yi ci suuf hein. Numéro yi laa bëgg ci suuf comme ça gars yi gis ko mun ñu woo en direct bien sûr. tey tey xoolal du ma sax message yi voilà du message tey que des appels en direct au 88 628 super alors euh, Master euh, donc euh, j'ai pas mal de clips des nouveautés oui. j'aime bien les nouveautés les hits les exclusivités mhm. et durant l'émission aussi on va accueillir euh, une diva une diva voilà donc una belle regarde une diva c'est-à-dire une femme c'est une diva elle est très belle waaw jigéen bu rafet ok xam nga lu naan jigéen bu rafet. une diva jigéen bu bu rafet. bu jigéen bu rafet. waaw jigéen bu rafet. rafet oui waaw une diva una belle. una belle. regarde ça. regarde ça. voilà ok <laughs> super. jigéen bu rafet mais du ma wax tur bi quoi. ok surprise lay doon. voilà donc si kanam ñu. jigéen bu rafet dina ñëw si plateau bu rafet. voilà ok. voilà gunge tamit sénégalais yi. gunge sénégalais yi. loolu neex na. parce que da leen indi tamit moom tamit lu bees xaw ma dama bëgg lu bees. c'est clair voilà mais avant de l'accueillir bien sûr on va regarder un joli clip de Baba Amdi. Baba Amdi voilà moom tamit dafa génne lu bees Baba Amdi. Mhm. donc on va regarder ça et puis juste après revenir pour prendre quelques. ok donc suñu seetaanee clip bu Baba Amdi bi rek gars yi préparez vos portables hein. juste après le clip euh, de Baba Amdi je vais voir qui sera mon premier téléspectateur en ligne. gaaw leen def dièse 1 2 3 dièse ngeen xool ndax am ngeen crédit pour pouvoir nous appeler juste après ce clip on va prendre le premier téléspectateur au Sénégal en Afrique partout à travers le monde entier ça sera un homme ça sera une femme Les numéros de téléphone sont en bas de votre écran, bien sûr, euh, avec la complicité de Vieux. Vieux, si c'est bon, donc on y va pour regarder ce clip euh, de Baba Amdi. Baba, yeah. Amdi Baba. Donc, au plaisir euh, des le best là, Baba Amdi. Qui sera bientôt dans Weekend Star, bien sûr, comme invité de voilà. Samira PNG et, Tosh. Si je ne me trompe pas. Alors toujours en compagnie de Yellow euh, Vet euh, mesdames et messieurs euh, je viens de dire euh, tout à l'heure am na crème am na huile am na savon am na gel euh, donc tey su ngeen amee ay tâches surtout les les femmes su ngeen amee ay tâches mun ngeen jël produits yi ngeen diwoo ko parce que day tax képp ku nga xamante ne tey am nga tâche sa loxo wala sa sa kanam wala sa yaram bien sûr dina ko dina la ko dindil donc allez-y euh, faites le tout pour euh, vous euh, avoir la possibilité bien sûr d'avoir ces ces produits de Yellow Vet J alors sur ce je vous l'avais promis le direct aujourd'hui je vais donner calmement tranquillement les trois numéros pour pouvoir nous joindre en le premier numéro c'est le 88 628 22 22 88 628 22 22 Le second numéro, le 88 628 65 65. 88 628 65 65, ça fait deux numéros. le troisième numéro, c'est le 88 le 65 65, vous avez le 22 22 et vous avez le 20 Qui sera mon premier téléspectateur? est les enfants? C'est possible, bien sûr. Donnez le portable aux enfants pour qu'ils puissent nous appeler. Salut PNJ. Voilà, c'est les trois numéros pour pouvoir nous joindre en direct. 88 628 22 22, 88 628 65 65 et 88 628 20 20, bien sûr. À la régie, il y a une dame qui s'appelle Eva Awa. Donc, c'est elle qui va nous transmettre les appels. Awa, Awa, tu es en train de me regarder, tu es en train de m'écouter. Envoie-moi le plus rapidement possible un téléspectateur pour qu'on puisse communier, bien sûr, avec lui. donc, euh, Mosepi, moi, j'ai envie euh, de jouer avec tout ce beau monde qui nous regarde. Voilà, donc, concernant tes appels. donc sànq nee naa la dafa am benn jigéen boo xamante ne femme moom la ñu invité. Mhm. léegi dama la bëggoon may ñaari son ñaari clip léegi à travers ñuy woote ma xool kan moo nar a gagné na. kan moo nar a gagné. kan moo nar a gagné c'est-à-dire kan moo nar a trouvé invité PNJ bi. je vais mettre deux morceaux. oui voilà deux clips. Euh, benn clip bi sous le nom de OMG. OMG OMG xam nga jigéen la. waaw moom tamit dafa génne lu bees. Uh-huh. et puis juste après je vais mettre euh, son bien sûr de Rema. de Réma, la diva Réma Diop. Oui. Voilà, donc parmi ces deux femmes, voilà, il y en a Il quelqu'une qui sera là. Voilà. OK. Donc léegi damay xool kan moo a gagné tey. Mhm. et puis après ñu décorer ko. sama téléspectateur dañu muus de. Ah. dañu muus de kan moo a trouver voilà la question. vieux da may tegal clip bi. léegi vieux benn clip OMG laa bëgg et puis après. Réma. da koy vrech nag ah. OK voilà donc Facebook bi waxal euh, animateur yi DJ yëpp euh, maa ngi teew ci seen plateau donc de passage DJ Janon mention spéciale à lui et puis on les autres DJ animateurs qui seront là euh, tout à euh, pour nous expliquer leur match de football qu'ils auront euh, ce soir de 20h à 22h au niveau de euh, Voilà, donc on a regardé les clips, le joli clip de la diva OMG. Et puis voilà, on enchaîne aussi avec l'autre clip. le clip de Rema nag ma si may et juste après ñu jël ñi nga xamante ne ñoo ngi woote depuis sànq ba léegi ah Rema si c'est bon vieux. ko. donc entre OMG ou Rema qui sera l'invité de. P et de G. Elle, ne la présente plus, la ouais, diva, ouais, la elle princesse. A une bien sûr. Machallah, Rema Diop. Rema Diop. Donc, entre OMG ou Rema, am na tey kenn ku war a nekk si plateau bi. waaw yow mi sax di wax ni xamuloo kan la. xawma kan la Même Tosh, il ne connaît pas la réponse. Non, aussi, il ne connaît pas la réponse. Donc, on va l'appeler euh, Tosh. Euh, euh, moom moom moo indaale suñu artiste bi Euh, waxoon naa ne su ñaari clip yi jàllee damay commencé jël euh, direct bi si 88 628 22 22 ñi nga xamante ne ñu ngi doon woote ba clip bi doon jàll et léegi mun ngeen démarrer seen ay appel je vais prendre deux appels bien sûr au 88 628 22 22 Toch bu ma indee léegum léegi sama artiste bi day xaar tuuti euh, ma jël deux appels rek deux appels pour laajte entre OMG wala Rema kan la voilà je vais accueillir Toch. mu nuyu ma. Toch na nga def. Euh, sama question yaa ma si njëkk a répondre. ah eh, non est xam na sax ku ñu invité. ah bon bañ xam moom laa jëli woon. ah maa ko indaale gannaaw. kon moo tax tey nga tardé. non non tardé wu ma mais c'est juste da ngay xaar invité bi mu préparé wu xam nga rek. Ah. maquillage bi. Mhm. ma gën a xam jëloo ko taxi ko dans de bonnes euh, dans de bonnes. dans d'excellentes mu noonu la parce que la TFM quoi il faut mettre les invités dans de très bonnes conditions. kon kon euh, jamono ji képp ko am invité PNJ Toch moo lay dalal. man maa lay jëli ba sa kër. ayca Toch jëlal ma kii ne ko bonjour appel en direct. bonjour. salaamaaleykum. allo. góor la. salaamaaleykum. moo tax ma dindi bonjour bi ma salaamaaleykum. allo. waa sëñ bi yaa en direct ñu ngi lay déglu. ah 88 628 22 22 88 628 65 65 88 628 20 20 donc on a des soucis pour l'entendre su fekkee ne am na keneen ku nekk ci ligne bi ñu ñu jël ko ci 88 628 allo oui. allo. bonjour euh, mademoiselle ou madame. bonjour. c'est mademoiselle ou c'est madame. pardon. mademoiselle. mademoiselle noo tudd ak fan nga ñuy wooye Ndeye Mati Dias daa di wooye. Dias. Toch tu euh, côté de l'aéroport. ok kan lañ lay paas pii lañ lay paas wala ji walla wala Toch. donc pii. pii wuyu. <laughs> Ndeye waaw bu dee. Ndeye na waaw. yaa ngi cool naka Dias moo ngi neex. kañ nga ñuy invité foofu nag man ak sama jumeau ak Toch ñu ñëw seet si la foofu nga toggal ñu yaasa ginaar yaasa ginaar. boo mel ni ah. ok léegi tey suñu invité bi solo comment il s'appelle. selon Ndeye. selon Ndeye donc invité bi nu mu tudd. OMG la wala Rema la kan la ci war a doon. Ndeye dafa mel ni bi dem na de. Ndeye Dias. Ndeye Dias da nga ko waroon teel a posé ba nga ko waxee bonjour rek. OMG wala vraiment. Eh. non kon xanaa da nga bëgg wax kon téeméer la du la jënd. waa Dias suñuy dugg seedoo la ñuy jël de. ah ok Dias xam nga Dias. mais mënul jënd téeméer tamit wax ak pii wax ak ji wax ak tos wax ak ah, téeméer daa ndaw ni mu mel ni keroog sama jàng bi na ma ñu ñëw di jooy ni na ma ah, lekk ngeen sama téeméer damaa woote ba soon ma njàllu aw ah, mu ne ko téeméer daan daw beneen ma joxewaat numéro bi 88 628 22 22 wala 88 628 65 65 wala 88 628 20 20 pour pouvoir communier avec PNJ et Toch j'espère yeah. que tu as passé une très bonne euh, euh, euh une, une bonne soirée hier. waaw ouais, bien sûr parce que amoon anniversaire amoon dara. Euh, juste nekkoon ci liggéey bi yaa ma gën a xam quoi. ban liggéey yow. liggéey bi man tout le temps maa ngi ci liggéey bi. Oh. liggéey bi rek la ñuy toog. le soir même le soir on travaille parce que. boo liggéey li nekk ci internet bi et tout tu es obligé de te connecter. di affaire yi waaw ba minuit une heure du matin deux heures. ñu ne Sénégal yooyu yaay topp kaay kaawu ngaa ko blende bi ak kii keneen ci nu mu tudd ak lu bëri fu ñu toll saa yéen. jeex na wala dañoo pause ba le deux. dañu pause ba le le 2 qu'est-ce qui va se passer. le 2 day face to face ñoom ñaar. ñoom battle jàkkaarloo ci kaw bi ñu battle. battle mais xam naa ñàkkul ni ji mooy nekk ci mix bi di leen may ay bit yu metti gars di ko fëggante. <laughs> mais léegi teaser bu nga ka teaser bu nga ka avec les clashs. non je pense pas je pense pas. instant yii léegi dañuy xaar. kii dañuy xaar fële ñu leeral. waaw ñu leeral comme euh, animateurs yi DJ nu mu nekkee ku su nekk am na victoire léegi xamoo tey la éclaircissement ok waaw noonu la demee rek. ah kon tey man tey la mas animateur yi ak DJ yi. waaw gisoo laa war a football sax man fan laa war a kan laa a yi nga ñëw. si animateur yi ngay te animateur laay joué. waroon ngeen ma ko teel a wax ma indaal samay daalam nag. non c'est la nuit guddi la. allah. Guédiawaye doo diw yow defe naa da nga war a diw de. dama weex da nga weex sa waay jël jëlal benn si yére wu wér bi voilà boo nekkee célibataire moom barke alxuraan karim allez rapidement donc euh, je vais je vais je vais je vais prendre euh, l'artiste invité depuis NJ euh, s'il y a un autre téléspectateur en ligne rapidement on le prend avant d'accueillir notre invité 88 628 22 22 ou bien 88 628 65 65 ou bien 20 20. Vous avez trois numéros, bien sûr, pour pouvoir euh, nous joindre euh, en direct. allo. allo oui. oui. soxna si na nga def. ça va. noo tudd. Sophie. bébé Sophie fan nga ñuy wooyee. maa ngi woote depuis Fadiouth. Fadiouth. oh là là gars yi ñu la. on ça c'est notre village. waa Fadio waaw moo tax ñu kontaan nii on est fier d'être de Fadiout de Modiane de Joal. ndeysaan ah, nana nana nana nana séeréer nana séeréer. Apa. Apa woo nam nee woo nam nee. maa gënu maa gënu. da nga gën Fadiout. xeegere ji kan bu gong kan bu gong. kan nga si gën a bëgg. <laughs> ah nan jëba koor. war na ni retus waay. xëy nga defu tos. jo joko njalo paa. ki lu muy wax nii. Ah, ah, allez. joko mooy ñu ngi koy sant di ko gërëm. ok alors Sophie Sophie selon toi OMG la ñu invité wala Rema. non ku mu wax nee na moom ku mu mënti nekk baax na mu baax nit yi mooy ñi nga xam ne amuñu benn problème seen àdduna ok y a pas lu ñëw rek <laughs> alors Sophie tu fais plaisir à qui kan ngay wax coucou kan ngay may euh, big up en direct Sophie t'es toujours là Sophie, apparemment, elle nous a quittés. Elle est partie, mais, mais c'est un immense plaisir de savoir que c'est une jeune fille qu'on était depuis Fadjout. La maman, elle est de Fadjout, de passer un gros bisou à elle. Ange, la maman au jumeau PNJ. Le papa, il est de Moudier. Donc, chaque 15 août, PNJ, nous avons Joral Fadjout. Et des de que Gaëb, bien entendu, c'est beau. Gaëb, il faut me Nous, on est serré. tu es Moi, je suis Saloum Saloum. Saloum Saloum, Wakaolag. Ouais, Wakaolag. Ok. ñaar yëpp boo ma ci mixé rek damay. mais génnoo xeet parce souvent gars yi naan yenn artistes yi wala yenn célébrités yi suñu nekkee milieu xaw a am benn tour rek euh, pour ñu dañuy déraciné wu quoi. parce que yow bokkoo si si lobby boobu. nga léeg dellu en tout cas ku wàcc sa ànd moom ànd boo dem fekk fa borom mu toog. est-ce que di ngay gestu sa démb di dem seeti sa ay mbokk bien sûr dem dëkk ba di lekk ak ñoom di naan ak ñoom yéen xam ngeen li ci dem village dellu village xam ngeen ne loolu dara dàq ko benn benn moment la boo xam da nga koy dund nga nga sa bopp sentiraat sa culture mhm. man du ma gëj Saalum déjà man sama sëriñ rek la nekk ko à travers les médias dañu xamul dañu je pense que dañu xamul mais nit ki moom am fi nga bokk xam ko mhm. surtout nga bokk parce que fii Sénégal benn xeet ndaw fi xeet yëpp rëy que ça soit ngay séeréer joola alpulaar ah, olof manjaak ak loo mënti doon yow nekk sa culture yëg ko muy daw sa dret loolu dara dàq ko la demal représente te loolu pour man loolu fierté la quoi parce que tey jii nii da ngay taxaw taxawaaye ku gis PNG fierté wu Joal Fadiouth Fadiouth yëpp la voilà man mii nii fierté Saloum yëpp la keneen ak keneen ak keneen fi nga toll sa fierté dëkk nga amoon lu dul loolu tey jii boo jógee ñoom ñëppay jóg voilà alors J on va regarder à nouveau euh, un clip pour départager dañuy seetaan benn clip soit suñ ñëwaatee si xam ne OMG lañ invité suñ ñëwaatee si Réma ngeen xam ne Réma la ñu invité et puis juste après l'artiste invité ils sont en cours de route les animateurs les DJ ñu ngi si yoon juste après l'artiste invité on va et eh, on va recevoir sur ce plateau beaucoup d'animateurs beaucoup de DJ tout de suite nga euh, délibéré wax ñu kan la ñu invité en mettant le clip c'est parti Euh, vraiment s'il te plaît waaw euh, sama caméraman bi Ibou jël euh, sañse bi. ak ah, mën a waay. macha allah donc elle est là l'invitée de PNJ l'invitée de Toch ñu bàyyi la nga xool téléspectateurs yi en direct nga nuyu leen bien sûr sur ce plateau seetu bi. asalaamaaleykum wa rahmatullah bonjour à tout le monde maa ngi leen di nuyu PNG di nuyu Toch mon frère di nuyu tous les téléspectateurs de la TFM di wax ne c'est un plaisir pour moi d'être là aujourd'hui oh là là c'est magnifique mais man doy doyalaguma si nuyoo xam nga laa bëgg nga nuyoo gars yi nga may ñu benn affaire de dix secondes vingt secondes trente secondes gars sentir sa sa baat bi quoi may ñu benn affaire loo sentir rek nga may ñu ko. cukkuli guntaati niin lu gugura moo gorfand yàlla noppi na ñi xale yi yàlla yëfum yi mu yor bari ci moo ko moom bu neex ak man da di waaye tos yàlla bu ko saay saay bu bon bi xam bi njabootu léegi dafa metti te doole yi mujj yow mi yor sa njaboot ci sa biir kër di leen dundal añ réer nekki bëccëg bi ñetti taal la weer wi juróom-ñeent fukki taal bàyyi la te kër goo ca dem ñaar fukki waxambaane kenn ca man benn tubay fanweer bokk ko yéen a gore benn semis ñeent fukk sol ko nga a gore ñeme ko cigarette ñeent fukk tux ko nga yéen a gore bu ñu ataaya deg doro daanoo ñu ñu gore xale yi ku leen jamono ji ñu ngi octobre mais tey képp kuy anniversaire ah le mois d' octobre wooñu wooñu en direct ah, parce que tey on a une diva boo xamante ne ñëpp la nar a souhaité xam naa joyeux anniversaire ah. si te gars yi dañoo nar a woote tamit baatere ko parce que lu mu wóyee dafa dafa neex. dafa neex vraiment ah. kan ngay kan ngay dendal tos ngay dendal jus wala fii. forcé ànd la nag de. Ah? da ngeen yàgg yéen ñaar. waaw ça fait ça ah, am na ku mu dee parce que d'habitude weekend star gars yi dañ koy. dañ koy ñeef gars yi dañ koy dañ koy coow <laughs> kii kii kii boobu dañu dañu doon yàgg kii mun a du ma ne début parce que fekk na ko muy kii mais depuis Rani Super Band. Ah. c'était moom ak mon grand frère Xissa les Bara Momo. boobu laa njëkk a découvrir temps mu nekk nit koo xamante ni ba muy mën du tay ah bon amaana nit mën nañ cee jot tey mais wala xii ba muy way. lu tey waaye ndoowul ak benn moroom da foogoo ne si Tata sax la génnee seen petit gàllé affaire seen nag non non seen petit gàllé de vraiment kii ban produit mais boobu tamit euh, Tata Ngoné moom fa woon mu ngi doon suivre Tata Ngoné bokkoon na ci jury bi tamit parce que euh, concours la woon bu magoon boo xamante ni yaakaar naa génération boobu noonu ñi ci génnee boobu ba léegi ñoo nekk di cartonné fii nii ci ci ci kii bi ci ci monde musique bi xaar may ma jaaga. xaar may. je suis de Rufisque du du xaar may ma jaaga. ma jaaga ok di dégg xaar may ma jaaga di dégg Yanné Kodou. te te li nga wax ni euh, mun nga fële fu la neex tamit ak même pas. bien sûr. acca ba ah, allez-y allez-y. tàngaay na bi la kaay. tonni wapi oh haya miso ikotanga golingo nanga iye nanya kulimelanga tengo ya bolingo ye wapi oh wapi oh yeah yeah wapi oh eh golingo nanga c'est du lingala Wakuyo de Lokuakanza. Okay. Donc je chante en anglais, en français, en hindi, en mm. espagnol donc. Euh, ok avant ñuy jël téléspectateurs yi nga xamante ne. Euh, yàlla mën a maye euh, nañ dem seeti anglophone yi. parce que dem ñoom ñoo doon. Eh, bu leen sonal nag suñu yàlla Tuesday, I won't leaving you.

laa bëgg ñu dem France waa France. kii quand je t'ai confié. ak a sawar. tous mes sourires, tous mes secrets. même seul mon seul frère. elle me garde inavoué. ton signe, maison de pierre. Satan pour regarder mon ciel. je t'envolais la guerre. deux cœurs qui se plaisir des amoureux de tous. t'as pas t'as pas t'as pas envie de l'interrompre quoi. Ah, quand il chante euh, tu as envie de faire comme ça d'écouter. elle t'amène elle t'amène loin. oh là là c'est magnifique. maanaam lu jógee ci xol ci biir xol la lay mën a dellu. Euh, soxna si. Euh, euh, voilà. alors yóbbu nga ñu France yóbbu nga ñu Angleterre des na fii sa réew Sénégal Italie da nga la bi daanoo yëngu ko tonte. ami yo mi matinero por el día por el santo vagabonde por los querer man ci yow la nekk madini reexana duma looy bi xale bi na yow dem ma. ndax àdduna. nag àdduna mu solo. moom bi fi ñëwee. mi fi ñëwee. est ce que nga man gisuma la ko. fi ñëwaatee. ma daal di lay retaan. Ah, eh, man xamuma la ko. bis ba fa ñëwee. fi ñëwee. ba wan ma wan la ginnaaw. nga ne ko kii laay doon a xam ne. budul boobu ñëwal wuyu ma. ko xale bi. toosi yow gaañu ma. day daal eh, ñëwal wuyu ma. Moustapha gaañu ma. sànq ba sànq ba tey ma ngi lay woo. toosi yow gaañu wuyu ma. ah wuyu ma. Rema gaay wuyu ma. ah la la la la la <laughs> coxaan na ma direct nangu naa copp naa bu yàgg. est-ce que doo bàyyi loxoom ñu copp naa ah. ah boo ñëwee ma diire. boo boo ñëwee boo ñëwee ma di ree oh boo di ñëw ma di jooy boo demee ma di jooy ah tosi yo gaay muy ma day la yow bu ma rey vraiment baal ma man sa ndaw la bu ma rey alors vous aurez l'occasion de parler avec elle au 88 628 22 22 88 628 65 65 et le 88 628 20 20 en cours euh, d'émission Raymond l'invité de ce plateau bien sûr 7 ou 8 alors euh, Raymond on est gâté hein félicitations tout à l'heure je vais recevoir beaucoup d'animateurs dinaa ko leen jox sa contact ñoom tamit ñu mun la jël ci seen ay émissions que ça soit radio ak télé n'est-ce pas. parce que vraiment chapeau à toi. merci beaucoup moi j'ai je dis bouche <laughs> euh, dawal leen quoi tâche je dis dawal leen quoi bàyyi ma toog di ko xool rek. <laughs> vraiment léegi artiste boo gis day am base tey suñ nee vraiment fan mooy baasan am sa secteur fan la vraiment nous vient d'où moi je suis de Rufisque de Bargny de Yoff. ok Rufisque laa joge Bargny ak Yoff. Rufisque Bargny et Yoff quoi. Mhm. tey nga ñëw fukki penc ñaari vraiment tey nga ñëw indi ñu lu bees loo xamante ne gars yi namoon nañ la ñu gis fii clip bu propre faut oser le dire ah. mu mhm. clip bi set na nice na bëri na ay couleurs bëri na ay 5 set tamit. Ah, ñi nga xamante ne danseurs yi ñu si bëri xamee naa leen. et les artistes. voilà donc euh, chapeau pour ce joli clip ah mën nañu si wax tuuti. waaw déjà le clip euh, c'est Imam Zizar qui l'a réalisé donc euh, mais son bi jës bit moo ko def paroles yi c'est Kouroumandi Mouri di leen remercier de passage xam naa ne ñoom ñoo ci jàpp vraiment mhm. le clip aussi euh, ça n'a pas été facile mais quand même on a euh, benn entourage boo xam ne benn staff boo xam ne ne ñoom ñoo ciy jàpp à chaque fois di wax ne le clip est disponible sur YouTube et sur les plateformes de stream bu jeexee jeex na le pourquoi déjà je peux dire que ñun feuille dañoo am benn feuille de route. moi mon premier single euh, s'intitulait euh, Asgor. Mm -hmm. donc c'était pour rappeler la base c'était en 2021 en janvier mm-hmm. donc de à j'en suis à 4 singles donc euh, on a commencé avec Asgor pour rappeler ce qu'est la base d'une relation que ça soit une relation amicale en amour en parenté tout tout tout tout di wax lan mooy base relation muy mm-hmm. ngor ngor du jàpp bàyyi du mm-hmm. miin ba fàtte du tas yaakaar du fecc rek mm-hmm. on a poursuivi ak Falaay Lange qui est a est plus de 10 millions de vues sur euh, YouTube ñu pare indi euh, gunge ma ñu pare nag indi su jeexee jeex na juste pour wax ne ne parfois da ngay ànd ak nit ba dara doonulee dara mu lay ree boo tourné mu nekk ci sa ginnaaw di wax lu ñaaw donc di rappeler aux gens que ne àdduna amul solo yow mii xëy di def lu bon ka ngay def lu bon mu ngi avancé la nga koy def lu bon jël ko nga def ko ci sa bopp pour yow nga avancé comme moom donc c'est juste ça et mm-hmm. gens sont faux quoi mm-hmm. y a des gens faux qui sont au niveau de la société mm-hmm. euh, tey benn toch nekk ak PNJ tous les mercredis à la télé tous les samedis di ñu reetaan et tout mais suñu génnee wax waaye DJ yi ñu naan fekk nañu waaye DJ yi ñu xamuñ dara waaye en fait euh, nit moo mel noonu quoi tey aujourd'hui on te sourit ou bien on te donne un poignet de main mm-hmm. nga foog ne ce poignet de main là c'est réel c'est vrai au fond derrière y autre chose. waaw déjà tout le temps dañuy bëgg aussi opter ci ci peut-être lyrics boo xam ne ne dina dina sensibiliser. Mm-hmm. dina sensibiliser parce que woy lu neex neex na nga def melo di neex na musique bi neex mais aussi les paroles. parce que mm-hmm. dañuy am public boo xam ne ne day doon ay mag am public boo xam ne ne ay xale la donc lépp lu ñuy woy dañuy bëgg mag ñi gis ci seen bopp. ndaw ñi gis seen bopp en quand tu te dis être artiste artiste tu dénonces des vices mhm. tu véhicules des messages mhm. il te faut vraiment faire des textes yoo xam ne ne que ça soit en amour ak nu mu mënti doon mhm. nit ñi dañ ciy jàng donc c'est c'est juste ça mais où est-ce qu'on peut te situer parce que avant on te voyait plus dans de son un peu doux peu mm-hmm. love et autres mais tey fan lañ la mën a situer parce que là on on sent que yaa ngi bëgg laal yeneen horizon mm-hmm. découvrir d'autres structures je fais du jazz je fais du reggae je fais de l'acoustique donc mën naa ne ne euh, je touche tout je touche à tout quoi tu vois world music laay def donc tout dépend de de de de de peut-être de kii bi ma am mm-hmm. euh, public bi ma am ak fi ma nekk na quand je sors du Sénégal mais bi parfois je fais du du reggae mais mhm. aussi dama ci yóbbu sama culture mooy mbalax. mbalax waaw mais là fan nga gën a sentir sa bopp yow. maa ngi fépp. maa ngi fépp sincèrement pour dire vrai maa ngi fépp. mu ne mbalax bi est-ce que foog nga ne di nga fa am place. bien sûr ah, damay def mbalax mu neex ak ces femmes qui cartonnent aujourd'hui est-ce que le plus souvent léegi gisatoo peut-être xale buy def mbalax. rarement nga koy gis. Mhm. damay def traditionnel damay def moderne je fais du tout. mais musique doxul. kay bañ a gàmm. muy dox bien sûr. mais da nga koy bàyyi définitivement ou damay def ay soirées yoo xam ne ne je fais des variétés ci ci ci hôtel yi et tout j'ai j'ai commencé mes répètes et en plus am na benn groupe am na group bu tudd Ngalam. da nga am groupe. bien sûr il y a Mama Keita dedans la bassiste il y a mm-hmm. Mamour Kassé pianiste. c'est le chef de playback non am naa groupe non mais kon yow foog ñu préparer benn émission week-end saa mu indi affaire yeeg yëpp ah. ah bëggee rek yéen bëgg leen Weekend Star boo xamante ni spécial vraiment lay doon mu ñëw teg orchestre bi ñu jazz mbalax reggae salsa lépp mu wan ñu facette am yëpp maanaam kii mooy genre nit yooyu noonu nga xamante ne bëgguñu benn weccit romb leen ci benn côté musique li reggae yi di war a lekk moom dina ci lekk mbalax man li ñu war a lekk dina ci lekk gisoo gisoo oh, pop dina ci lekk buuba buuba buuba nee na bu leen ko yóbbu weekend sa kakatar laa koy indi mu def foofu live kon instant déjà gaa ngi lay xëccoo j'ai euh, tonton Youssou m'a appelé vraiment ma am ci contentement tonton Youssou bien sûr barke du woo cuune du wocc ne ñun ñëpp mën na noo noppi kon jaratul ñuy wax oh, ay mën nga way ah loolu Youssou Ndour moom bu signé rek mooy euh, signé na mais man damay ñëw euh, ci côté artistique bi quoi parce que ñun ñëpp euh, c'est la jeunesse mm-hmm. dañuy gis ni talent bi mu ngi fii vraiment bu ñu ko xamee léegi du tey mm-hmm. mais pourquoi pas vraiment événementiel yu mag yi ñu la ciy gis comme lu mel ni vraiment woote benn Sorano Grand Théâtre wala au musée des civilisations noires pourquoi pas. waaw incha allah ñu ngi ci ñu ngi ci yoon bi xam nga mhm. compté boo gis si benn la commencé. vraiment peut-être 2021 la génn. Mhm. mu ngi fii en plus. Euh, mis à part la musique damay jàng je des études en génie civil. donc parfois c'est pas c'est pas facile d'allier les deux. def tey soirée def les euh, émission def les mhm. kii mais incha allah maa ngi ci maa ngi maa ngi ci tànk yi mhm. ñoo ngi ñu ngi def ay programme te incha allah di ngeen di ngeen ci jot mhm. dinañ la jox exclusivité bi nañ commencé koñ ba hmm? nañ commencé koñ ba nañ song stade Ngalandou Diouf pare barke alxuraan ñu song man yow la yàlla soo paree pare naa barke sëriñ kan euh, featuring euh, ah featuring kan lay doon tey vraiment featuring de rêve quoi kan nga gis def ak boo xamante ne sentir nga ko quoi. sa rêve tamit def ak moom featuring quoi. alors je pense que képp kuy artiste bu nekkee Sénégal buñ la waxee kan nga bëgg a defal featuring de rêve peut di nga wax ne Papa Youssou. waaw tu vois à part lui y a Kumba mm-hmm. Gawlo aussi. Mm-hmm. donc di wax ne sama sama idole la. et il a eu à m'inviter aussi. j'ai fait la première partie de d'une de ses soirées de son kamba. ah mooy soirée bi muy solee yëre boobu noonu am donc koy. waaw bi muy ñëwaat. donc ma amoon Papa Youssou pour def ak moom mën naa wax ne ce serait un rêve devenu réalité vraiment léegi yow naka nga gisee musique bi tey notamment xale yi ku si mel ni ñoom Dieyla ñoom mm-hmm. naa Baldé noo gisee game bi tey xale yee fi teg tànk de mm-hmm. xale yee fi teg tànk ci génération boobu bokk wala ci génération boobu laa bokk ci boobu ci ñoom laa bokk ñuy déggante ci ci jàmm macha allah et mën naa wax na ne ñun ñun ñëpp ñooñu que ça soit man jëy laa jëy naa ak ku mënti doon mhm. mën naa xam ne ñun ñoo doon relève bi donc mën damay damay ñaan aussi di lancer un appel mhm. mag ña xam ne ne ñoo ñu jiitu ci ci milieu bi mhm. nañ ñu jël te ñu ci seen wet tu vas tu États-Unis da gis benn Jay-Z wala benn Kanye West wala kenn jël benn artiste boo xam ne kenn xamu ko def ak moom featuring juste pas pour moom de pas pour moom boppam parce que moom li mu am na ko mais c'est pour booster jeune on en a besoin ñu ñu ki la jiitu ci néeg bu lëndëm moo la mën a wax fi ngay toogee mhm. moi j'ai eu à faire un plateau avec euh, Soda Mama et vraiment mu doon loo xam ne daf ma taal ku ma gis wax ma ne gis naa nga def ak soo de maamu plateau. Mm-hmm. loolu mbégte la ba pare loolu avancement la ci man peut dama ça m'a ça m'a ça m'a A à un point B. Mm-hmm. donc nous on en a besoin en tant que jeune ñun ñooy relève bi ñun aussi bu ñu àggee fenn fi ñun ñooy def loolu noonu. Mm-hmm. ainsi de suite. mbir mi bottu la da ngay est-ce que sans complexe vous tendez bien sûr bien sûr ñun ay xale lañ te ñun dañoo bëgg li ñuy def. et ils parfois da ngay am problème parfois pour nga jot benn artiste rek pour problème la. ah bon bien sûr bien sûr da ngay gis ñoo xam ne ne ñooy nekk ci digg bi peut-être ñoo lay baare wala dara. wala ñu ne dala dina la dina dina la dina la jàppale alors que da ngay toog ba à un moment yow yaay demal sa bopp te musique moyen la laaj. Mm-hmm. tu as beau avoir la voix c'est comme le pétrole à l'état brut boo ko liggéeyul doo ko utiliser. donc on en a besoin on a beau avoir la voix. on mm-hmm. a beau avoir le talent mais boo amul machine bi lay jàppale doo dem. mais yaa nekkuma ci benn label kon nooy def pour euh, ce clip je fais de l'autoproduction je me produis moi-même. bëgg nga nekk ci label avec tes propres fonds. avec mes propres da en dehors de la musique. maa maa ñawal sama bopp. maa solal sama bopp ah c'est bien ça je non euh, j'ai un couturier donc je travaille dans ça aussi en plus damay jaay je fais du business par-ci par-là. mais bëgg nekk ci label quand même. bien sûr. tey jii nii su ma la newoon prince aar ça te va. bien sûr tout dépend. ça dépend rek bu ñu bu ñu kiiwee woo kan moo yor numéro <laughs> si Khadija mooy. en direct lii euh, mais tey est-ce que c'est pas aussi le moment de te dire ah. je vais m'enfermer sur mon coin j'ai mon talent et tout vu que je les ai appelés ils veulent pas ou bien elles veulent pas maintenant c'est à moi de gérer mon propre destin. déjà de Asgore à à à à. à... su jeexee jeex na gëm naa ne am na am benn changement bu am donc si tu vois Falaye Langué c'est un son tout le monde yeah. écoute mm -hmm. que ça soit Sénégal comme ci diaspora bi un son qui a fait dix millions de vues boo ko gisee di nga xam ne ne peut-être xale bi am na lu nekk ci moom mm-hmm. am na am loo xam ne ne peut-être am na benn produit boo xam ne buñ ko toggee mm-hmm. dina jur dara mm-hmm. y a des gens qui sont là qui font des propositions mais maybe peut-être seen proposition ça reste wala dara. Mhm. donc il y beaucoup de de de de, de gens qui m'approchent. Ouais. sincèrement parlant il y a mhm. beaucoup de producteurs qui m'approchent. Mhm. on est en train de faire le tri par rapport à ça xool. lan moo ñuy arrangé lan moo tànn di segg. waaw waaw parce que loolu aussi booy dugg ci dara na fekk ne na affaire bi dëgg. parce que quand tu vois que toi tu as fait de l'autoproduction. yaa produit sa bopp. et li nga produit sa bopp ça t'a amené jusqu'ici. donc balaa ngay dugg ci dara peut war na doon loo xam ne dina doon lu concret. loo xam ne côté être dina la jëlee foofu noonu. Mhm. jëlee la yóbbu la fa. waaw DJ Nina euh, DJ la. Mhm. jigéen la mais day laajte est-ce que tu fais de la comédie musicale aussi. waaye ouais, je pense que je sais pas jamais eu à le faire côté boobu moom ñun liñ ci war a lekk bu ko lekk. <laughs> parce que règlement yi bàyyi woo leen bàyyi woo pop bàyyi woo mbalax mais euh, comédie musicale moom yàlla. ah j'ai jamais eu à le faire. wala bis boo demee ba di ko def nga ñëw ñu def featuring. Ah, parce que sax ah, seen duo ah, bi yow ak euh, yow ak Toch dafa dafa fënoon dafa naturel dafa nice. je et puis on sentait aussi de de la comédie là-dessus aussi. moo tax xam naa souvent di yéene naa di ko laajte. moi quand je chante je m'amuse quand je suis au studio quand je suis concentrée je chante pas. pour ma way lu neex danga ma naan foowal. donc damay foo pour way et ce que je fais du ko bëgg. j'aime la musique je vis la musique donc lépp lu may woy damay damay am dafay ça je veux d'abord que ça touche ma sensibilité pour mën a dem ci keneen touché pi touché pi wala touché ji tu vois donc peut-être que ne musuma xam nan lañ koy defee mais gëm naa ne bu ma ko bu ma ko mais dama koy defee mm-hmm. vraiment nga nekk xale nekk ndaw nekk jigéen mm-hmm. tentation yi dafa bëri ku si mel ay DJ bëgg tentation ji DJ Jano ji ah, yow li ngay xam naa da ngay benn réalisateur bu si mel ni Vieux Diouf la pour ma teg sa clip bi <laughs> ah, ma seet si comme daan yaay yooyu day bëri ak saay-saay yi mm. kàccoor yi dañu bëri si dëkk bi la fekk nga nekk ndaw loolu noo koy dundee mm-hmm. waaw loolu du jeex en plus boo dee jigéen nag boo dee jigéen dañ lay bëgg nag. yàlla boo mel ni vraiment. barke alxuraan. def sa rotation ah def say rasta takk ko ca kaw daan lal sa rosa. mais <laughs> gars yi dañuy tante. loolu loolu du ci ñàkk mais juste boo amee entourage bu baax. Mhm. xam fi nga jóge xam fi nga bëgg a àgg. Mhm. parfois da nga ci da nga ci def attention. Mhm. en plus am ndimbalu yàlla aussi. mbir mi loolu tu as beau avoir des principes. Mm-hmm. tu as beau avoir des gens qui t'entourent ñi nga xam ne ñu ngi lay jàppale di la mettre dans le droit chemin mais ndimbal yàlla moo la ci moo la ci moo la ci fekk. Mm-hmm. tu vois c'est pas facile nag surtout milieu bi c'est pas facile. surtout en tant que jigéen. mais dañuy xam li ñu bëgg rek en plus qu'on am sama manager boo xam ne ne vraiment Alga Balde. Mm-hmm. di ko nuyu de passage. Alga Balde nekk Alga Balde waaw Alga Balde nekk sama manager mais nekk mag bu am yar. mag bu am yar mag bu doylu. Balde waaw macha allah Balde laa àndal. Mm-hmm. may jéem a cadré. Mm-hmm. di ma di si waat. il faut mu sévère de. Balde il faut mu sévère bu <laughs> euh, mais mais euh, <laughs> euh, vous êtes marié ou vous êtes célibataire. célibataire sans enfant. célibataire célibataire sans <laughs> enfant. kon sama gars yi mën ngeen dundee yaakaar. Euh, ton style de futur mari il doit être comment. Euh, ndeysaan footballeur. il doit être de euh, teint clair ou bien sans stress waaye. un caméraman. rek ma jël taamu. mais tu as des principes am nga ay ah, principes yoo xamante ne bien sûr c'est normal. <laughs> j'ai j'ai des principes. mais bon am rek jël l'essentiel mën naa am jëkkër rek. ndaa mm-hmm. am rek. bu mënti doon baax. boo préciser miliyaari oui loolu am naa. candidat eh, yi yàlla les animateurs ki ngeen ku nekk ngi yëkkati am na fi défilé. naa am rek naa am rek ku ma suñu borom booleel baax na. juste na ma comprendre ci milieu bi ma nekk parce que c'est pas eh, facile. xoolal Vieux Diouf am ñaar rek mu ne ndax ndax doon troisième. troisième waaw ma wujje de. Ah. parce que. ngay xaw a mais que sentir nga ni yow instant bi nga pour boole li nga xamante ni moo di sëy bi ak mm-hmm. xaaral tuuti may ma tuuti. ba ma def sama carrière ba kanam. damay jàng. <laughs> pour gars yi daw il faut ma am fu ma fu ma fu ma jàpp en parlant de jàng euh, bëggoon naa tamit euh, ñu ñëw foofu on a invité pas mal de jeune fii pas mal de femmes. Euh, ay plateaux que ça soit radio et télé mais à t'entendre parler ta manière de communiquer de t'exprimer en français et tout. ça se que tu. tu continues à faire les bancs tu as fait les bancs aussi. Mhm. mun naa xam sa sa sa niveau d'étude et puis qu'est-ce que tu es en train de suivre en ce moment. Euh, maa ngi def génie civil à l'ESP j'ai déjà fini mon master 1 donc euh, damay def sama cycle ingénieur laa nekk. Mhm. en génie civil fële ci ESP. c'est un a toog di feeñ télé nii gars yi lay xoolee noonu sama waa classe yi ma ciy dimbali envoyé message eh, vraiment mu ngi nii la star di ma ñaanal parfois doo dugg ci classe bi ñu naan la noo xool ko def ñuy jaay neex wala affaire yooyu noonu kii ñii lay kii mais tos yow ak niveau booy bi am est-ce que di nga ko mën a yor yow non bien sûr ma koy yor bat ko attan maa moom ñoo bokkoon classe li muy def na man génie civil def naa ko bu yàgg depuis 2014 laa def sama formation en génie civil kon euh, xam naa ko ci côté yëpp tax am plus artiste la may artiste ma dëkk Kër Massar bu dëkk euh, Rufisque passe bi cent franc la mooy loolu quoi ndoxaani bi du metti chaque samedi soir nga def daal cent franc dugg gëla gëla en direct va bébé. donc alors avant d'accueillir euh, nos animateurs qui sont là quels sont les projets de Rema dans l'immédiat à part ce joli morceau ce joli clip lan la ñu mën a xaar tey si Rema. waaw déjà je suis euh, sur la communication de su jeexee jeex na. comme ni ma ko waxee woon tout à l'heure c'est euh, disponible sur YouTube et euh, sur toutes les plateformes de stream ñoo ngi aussi préparer ay live dans des restos. dans les dans les hôtels aussi. donc ouais on a on a des des dates yoo xam ne c'est ñu ngi koy ñu ngi koy ñu ngi koy waxtaanee. Mm-hmm. incha allah très bientôt peut-être ci euh, mois de novembre bi décembre bi. Mm-hmm. en plus euh, on a programmé des tournées. au niveau international en Allemagne en Espagne insha allah ñun daal ñu ngi ci liggéey bi mhm. ñu ngi ci liggéey bi ñu ngi liggéey aussi yeneeni single mais bi aussi un album pourquoi pas ok euh, vraiment ça c'était pas prévu euh, pour l'émission j'aimerais à travers la complicité de mon DJ mu yónnee ñu benn affaire rek euh, mhm. euh, nga fos yi si c'est possible kii mën lu raw loolu kii mën lu raw kii moo jàppoon ñoom ah, ah. ñoom Amira Abed yooyu noonu ñooñu la jàpp concours duma leen dumay metti <laughs> donc euh, J dégg ma yow la wax nga ne. kii laa mun na lu ne moom moo jàppoon ñoom Amira Abet ak ñooñu noonu jàpp leen ci concours ba duma leen duma yu metti sama kanam la barke fan lay jaar ba duma boo yooyu. ah yii kam nee naa la concours boobu noonu seen génération boobu noonu ñoo téye musique bii nii man dama fekkee démb seetaan xam lépp. moo xam naa ngay rafetal. Eh, moo gañe concours bi moo demoon Dubaay. ah yaa mu ngi woon Dubaay vraiment. yee. Dubaay dafa neexoon et tout y avait les Xirsa mon grand frère et tout ñii xale yu saas lañ. Euh, ji ñu <laughs> ñu ñu may ko téléspectateurs yi nga xamante ne ñu ngi seetaan et puis ils sont en train euh, d'admirer bien sûr euh, ce qui est en train de faire notre artiste invité ton vrai prénom non c'est quoi c'est Mariam Mariam Diop ñu lay woowee Réma. Réma Diop ok super. a juba dawul yoole si c'est bon. ñu dem. jiitu bu fi teg de. <coughs> da nga ragal loolu yow ragal loolu. ragal loolu. ji indi ko hip hop. hardcore bi. aywa ci indi rabu fukkeen kub bi. barke alxuraan. vraiment rapport yi la ëpp histoire de. waaw <laughs> ah bëgg na lekk xaalisu clash ah da ngaa dégg ring bi ñu ne dañuy teg xaalis yi ah réew xam mais yow tey soo boole mu clash ak kenn benn jeune fille si si génération kan lay doon. barke alxuraanu karim kan nga ñeme. Ah, euh, yow kan nga ñeme yow. ma ñemewu ma kenn. si sa si sa génération. ñoom ñëpp ma mën ñemewu ma kenn. xoolal nga booy clash da ngay clash ku ndelu. nga wàllum clash ndel da cee am solo. nga rappeur bu ñuy rappeur bu ñuy classe dañuy classe jaarale ko ci ndelu aba bi loyauté équité générosité ambition loyauté ga Sénégal Sénégal suñu gaal bëri gaal ba mel gaal maa gaal suñu gaal mag daal andi gaal wala daal bu gaal amul seeral bii gaal bii gaal laay tëmbal ter li ma nar mooy jàpp jën jox la nar fi ma jaar booy dafa laa jobb tar mais est-ce que dara dina ji nga xamante ne tey ñu ngi seetaan émission bi euh, bëgg la contacter et bëgg liggéey ak yow aussi le mois de décembre arrive y aura les arbres de Noël que PNJ euh, mm-hmm. bëgg nañ la euh, am toi ou ton manager c'est le 77 oui 503 503 77 oui 53 53 répétez ko 77 oui 503 77 ay go go go go égalité loyauté équité générosité iga sénégal suñu ga bëri ni ga ma ga suñu ga mat da andi ga wala da amul seran gaal bi gaal waay li ma laaj moo jàpp jënd jot la naan fi ma jaar booy dafa laaj topp go go ji go go go yeah. yeah. the birthday, and I'm sorry, last is the birthday. I will let me know, honey, you know, keep me, me know, yummy, me know, go, go, yeah. Deuxième couple bi. sama waa sama la li fi am mbir mi mbaxalu xeer la di ko suble taxu ko jorle may sëgg di jox yaa ngi wër yaa ngi wër yaa ngi wër yaa ngi wër yaa ngi wër di yàq sama der boo oh. kaay kaay kaay ma jël la sama waay mm. mm. dama lay dama lay saaw dama It's over, over, over, over, over, over. Mais elle est magnifique, hein. Euh, euh, euh vraiment, c'est, tu es magnifique. Je pense que c'est une première J, ñu jël ko PNJ. Euh, euh émission radio wala télé, c'est la première fois que tu et partage l'émission avec les jumeaux. Et congratulations, félicitations. Merci beaucoup. Nice na voir tamit moo ngi fii fu la neex ngay fële, fu la neex ngay génne. C'est pas évident, chapeau à toi. Polyvalence bu ñu koy wax moom la. Machallah. Alors, un joyeux anniversaire anniversaire elle s'appelle Keisha elle est en train de nous suivre bëggoon naa nga may ko benn happy birthday Keisha bu ma xam de. happy birthday to you. ndeysaan. happy birthday to you. Keisha. happy birthday to you Keisha. ndeysaan. happy birthday to you. ndeysaan. joyeux anniversaire. Joyeux année versaire, joyeux anniversaire Kisha. Joyeux anniversaire. Oh là là, c'est magnifique. Alors, alors euh, c'est avec quel son de Bye Bye tu vas nous quitter? Parce que nous, on, on s'en lâche pas de t'écouter. d'écouter d'écouter d'admirer de savourer ta ta belle voix les vieux suñu réalisateur bi moom moo la ko ñaan benn son n'importe quel son boo xamante ne on va on va sentir ta voix vieux suñu réalisateur bi nee na ma may ko nga ni kan nga daan gis. yow laa doon gis. ndeysaan. bi ma sonnee yaa ma doon dig gërëm ko. mbaa fàtte woo ko. man daal fàttiwu alxuraan karim ku yabu xool ko li ngay xool Xavi, ils sont déjà là. Tout le monde applaudit, hein. Tout le monde applaudit, tout le monde aime et tout. Euh, quel sera ton mot de fin à l'égard de cette émission que tu viens de partager avec PNJ et Doche? Déjà, merci beaucoup. affaire mooy émission bi neex na j'ai trop adoré. Euh, c'est la première fois ma bokk ak yéen plateau mais franchement j'ai pas regretté. Euh, di leen remercier di remercier sama manager bi ma àndal Alga Balde. Mhm. <laughs> Balde. bi di remercier ma famille. seen look bi waaw Alga Balde lu mu bokk ak Ama Balde selu ko yadaa bi. <laughs> di leen remercier di remercier di remercier waa Yoff. di wax ne su ma accès fii ñoom la. di remercier waa Sénégal yëpp ñëpp ñu ñuy seetaan te ak yow. waaw lébu laa aussi lébu ak. xarala la lébu la. yaa ah. Chifo a un événement le 30 je pense Chifo Rio si si je connais Chifo. Mm-hmm. donc di leen di remercier sénégalais yëpp ñi nekk fii ak ñi nekk ci diaspora bi di wax ne lépp yéen la bu ñu accès fii yéen la. Mm-hmm. jaaraama mais amul benn événement phare boo am novembre bi wala décembre foo xamante a ñëw seetaan. am naa benn programme euh, Novotel ak Pullman. c'est quand. Mm-hmm. Euh, fin fin octobre début novembre incha allah. dinaa leen dinaa leen communiquer date defuñ dara ñun defuñ dara defuñ dara. def benn émission bu nice à la radio avant avant boobu ji. waaye c' est incha allah avec plaisir. donc un grand merci donc yéen si c' bon dañuy seetaanaat clip bi clip bi. clip bu neex bi voilà clip bu neex parce que duñ si doyal ji. lu la. vraiment ñu def promo bi. ñu may ko sénégalais yi enjoy ko à Merci beaucoup, merci beaucoup à Raymond, bien sûr, la star qu'on ne présente plus. Elle a le show, hein. Chapeau Merci à les artistes aussi qui en ce moment sont en train euh, de nous suivre, d'envoyer des messages, de féliciter euh, l'émission. C'est tous les mercredis, bien sûr, de 10 à 12h. les samedis aussi, de 11h à 13h, euh, Week-end euh, Star. La radio, c'est tous les dimanches, de 19h jusqu'à 21h, RFM 94.0. Alors, j'ai changé de, de look. Hein. Toch dama koy jox ñaari dosan bi tim di jee lañ si bind ah. lañ si bind. tey nag laa xam Toch la gën a bëgg. lii bind. animateur. animateur animateur DJ. animateur yi nii. si ñaari ban la siy jël. fooy football tënnu non suspense. jëlal ma suspense. ma xool selon am goût. non Toch am goût. Ah, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. yaa na tax. allez les animateurs. il est animateur. il va jouer chez nous. chez nous avec nous voilà. voilà super donc. Eh, eh, dafa cher. <laughs> un million alors mesdames et messieurs vous avez l'habitude de regarder la, la télé vous avez l'habitude la radio ils sont là les les animateurs du Sénégal animateurs des 14 régions du Sénégal sont représentés ici par parce que dañu benn groupe WhatsApp boo xamante ne il y a 333 animateurs DJ. 333. ah mu <laughs> non ils sont pas seulement à Dakar. maanaam seen ñëpp bu ñu naree football maanaam ñetti quatre-vingt-dix minutes lañ koy def. non ñaari quatre-vingt-dix la. ñaari ñaari 90. waaw ah, ñaari 90 parce que gars yi bëri. <laughs> ok euh, donc euh, ils sont on est au nombre de 333 animateurs DJ si groupe WhatsApp bi euh, tey tous les DJ du Sénégal waa Ziguinchor waa Kaolack waa Fatick tey dañ ci tànn quelque rek ñu ne ñëw leen yéen ñëpp xëjoo leen fi mais au moins deux wala trois wala quatre rek ngeen ñëw représenter l'ensemble des DJ l'ensemble des animateurs tey Abba c'est un animateur humoriste tey am na benn DJ Kheucha saa bu nekk 2ST am na benn Pape Sidi tey ñi ñooy représenté tey l' ensemble des DJ l'ensemble des animateurs bien sur euh, qui ont l'habitude de vous faire plaisir vous les téléspectateurs tey euh, ñii da ngeen di dégg ci rajo ñii da ngeen di gis ci télé ñii sont des techniciens de son et autres euh, tey ñoom ñoo am benn match bien sur au niveau de Guédiawaye donc dañuy ñëkk jox parole un doyen sûrement yàgg ngeen dégg DJ Jano DJ Jano musoo leen ko gis am na ay animateurs yoo xamante ne ils sont dans leur coin la ñuy feeñ Euh, donc il est là euh, DJ Jeannot. kon ki mooy DJ Jeannot. waaw di nga dama ko bëgg mu ngi dégg nga sawaay. Oh! dama ko faa depuis xale. mosuma ko gis. ok alors vraiment merci merci pour initiative bi. fii ah. ak ji yéen tam gàcce ngaalaama jàpp mm. ngeen ci combat bi. lii nag benn groupe la boo xam ne dañ ko tàmbali woon nii rek. Mm. ci benn cas social boo xam ne Charles moo ko initié woon. Mm. après ma ne ko pourquoi pas groupe bi. ñu màggal ko te ñu bañ ci def suñu publicité yu bëri yooyu kaa bu am ñu jàkk ci yokk ko après au fur et à ñuy yokk di yokk di yokk mm-hmm. ba affaire bi egsi ba trois cent trente-trois yooyu nga wax mm-hmm. am nga léegi gars yi am ci fulla yéen ngeen jàpp ci groupe bi ñu ngi door a am groupe boo xam ne vraiment coalition animateur liggéey bu dëgër la mm-hmm. te ñëpp ànd nañ ci xol yi ànd nañu jikko yi ànd nañu nekk benn ñu ngi football chaque jour ñu ngi jàpp jokkalante ba defe naa dina ñëw sax ba pour ñu xam team animateur liggéey ku gagné dañ koy def comme NBA foog mu am ko gagné ak 3. ak 3 ak différence su. voilà 3 ñu door a ne kii gagné na parce que du jeex. parce que après ñu ñëw recevoir waa SICAP. day géejawaay la. Mhm. mais après ñun dina la ñëw deux éditions les premières éditions yi benn bi Parcelles Assainies la woon. bu njëkk bi après Médina. après ñu dem Médina ak yéen vraiment ngeen teral ñu mu rafet trop. ñun tam bugg nañ leen delloo njukkal teral leen géejawaay teral leen SICAP. SICAP ñu ngi xaar pii ak ji. ok waaw alors DJ Jano souvent dañu ko doon DJ Jano bu bu Zik FM. Euh, tey ñu ngi 2023 cela fait combien de temps nga nekk ci euh, milieu bi ci ci ci game bi parce que tey am nañ ba suñu benn chargé de prod Khadija ba ma ko waxee yaa DJ Jano de Zik FM yii kooku yàgg naa ko déglu de. waaw waaw nañ xam tamit ça fait combien de temps ñun est du ñoo njëkk a tëgg fii discothèque avec plus de 2000 personnes. fan fii cosaan cosaan fii nii. ah bon <laughs> avec Mbaye Dieye Faye Youssou Ndour bu ñu koy yore. xëy na bu ñu fiy nekk di tëgg ñu ñoo doon tëgg parfois pause yi. ak ah. ah, grand Safnia dafa yàgg def nañ 30 ans. ci show bi Safnia waaw. <laughs> DJ Safnia waaw dafa yàgg ñoom Kizito ñoom Eric bi Kizito waaw fii ñoo fi njëkk def discothèque. fii hmm. Cosaan Cosaan. ah kon yow sa kër nga dellu si. <laughs> sama kër laa nekk fii. 30 ans si musique bi 30 ans si game bi c'est énorme ça. c'est énorme ñun ak Awadi ak PBS <laughs> ñoo ñoo ñoo doorandoo. lan lañ mën a wax ci 30 ans noonu maanaam game bi am na évolution. Ah, wala am na évolution ñun def nañ ci lu ne jàll nañ ba léegi ñu dépassé nañu frontières yi. Hmm. léegi à partir de l'année prochaine sax dañu organiser personnellement suñu soirée Paris. Hmm. suñu soirée Canada suñu soirée États-Unis xam nga parce que léegi on n'a plus rien à dans ce pays léegi bon relève bi elle est bien assurée par jeune DJ yi nii animateurs yi macha allah macha allah te bon lii lii moo gënoon jafe te am ngeen ko mooy dégo bi ak mbooloo xam nga léegi lu ci des pour mu dem day ah yomb quoi yéen yéen seen époque euh, amu woon loolu chance mhm. boobu di déggoo ak tous les animateurs c'est ça concurrence dafa gënoon rude dafa métti woon <laughs> dafa métti woon dafa euh, ay classe ni kof ay wax yu sew ay classe traces du coffre quoi après c'est macha allah macha allah showbiz baa ngi dox. showbiz baa ngi dox animateurs yi bëri nañ ku nekk ngi béy sa waar boîte nuyu bëri nañu. xam nga philosophie yi bëri nañu contexte yi ak euh, maanaam. ambiance yoo xam ne bokkul ñi ay ñi ay animateurs yoo xam ne dañuy nekk ci secteur hip hop ñii ci cabo bi ñii ci hip hop. ñii bi xam nga mbalax bi voilà. waaw waaw allah. non mais mais am na ñoo xam ne am na ñoo xam ne amateurisme bi nag mu ngi fi. amateurisme bi mu ngi fi mais après sax ñun il faut ñu def benn genre. benn genre congrès boo xamante ne dañu woo animateur yëpp ñu mag ñi xale yëpp ñu débat. ci maanaam luy doxal animation bi. ak ak ak ak. Euh, naka la tudd sax wax micro soo ko téye ak lépp. yu tuyaat DJ bi nu ko booy di user série yi ñuy teg loolu yëpp baax na. liggéey dajaloo waxtaan ci am nga benn weekend am nga benn convention waxtaan. am solo c'est vrai si ñëwaat euh, tout à l'heure léegi ñu bàyyi euh, monsieur biir bi micro bi. di ko laaj tout d'abord ndax li biiru ginaar la wala biiru bière la wala <laughs> wala. mais mais mais coojubul tos saa dañ ko dóor marché bi moo tax muy siisu ah, waaw dañ ko dóor dóor yi métti. ok <laughs> moo tax muy siisu quoi yi nu mu demee noonu premier match bi ku gagné woon animateur yi wala DJ. DJ ñoo ñu gagné woon euh, ñu delloo leen trois ñaata. ok 3-1. <laughs> 3-1 affaire bi leen trop quoi égalité yi gagné nañ remontada bi moo saf quoi. Euh. troisième match bi mooy tey. waaw mooy tey. yow yaay DJ naka. DJ Charles. DJ Charles fan nga dëkk. waaw man maay Grand Yoff. maay dëkk Grand Yoff di représente Grand Yoff. ma ànd ak Dip doo di gis li li clip bu Dip yeeg. ah Dip yeeg concert bu Dip yeeg yëpp. clip bu Dip yow yaa DJ Charles forum Reptile waaw. ok Reptile musique Reptile musique. Eh, ah, ah. la yéen fan ngeen nekk ci affaire coow lii la moo génnoo leen non gars yi seen coow nañ leen bàyyi seen coow rek ñun coow la ñun bokkuñu ñu day kilifa lañ moo tax ñu invité ñu bëgg maison blanche tamit. ah booy dañ ay kilifa quoi. ah ñu day kilifa lañ. booy yow comme da nga bëgg ay ñoom ngaaka ay ñoom ara ñoom ñëpp kilifa kenn musul dem maison blanche ñun lañ tànn ñun. yéen rek nga dugg maison blanche ñun kese amul kenn. yeneen boo yëpp ay cuude la seen ginnaaw la yeneen ñëpp boo ci para rappeurs yi màgget yëpp kenn mosul dugg. ñu ngi leen xaar le premier décembre. incha allah ah. ok moom mooy DJ Charlie Reptile Musique en même Grand Yoff ah. donc lépp luy événement Grand Yoff yaa koy faral di couvrir foofu. waaw maa ngi couvrir événement yu bëri ah. événement yu bëri sama festival yi nga xamante ne moo gën a mag Grand Yoff. moom laa def chaque avril. festival bu gën a mag. ok ren mooy 9 ans. 9 ans ma koy def waaw. ok dinañ si ñëw léegi euh, monsieur c'est comment votre nom def tamit kermesse yu neex yi euh, grand yi. grand suñu kermesse Saint-Paul suñu kermesse paroisse bi waaw. ok super ok allez-y euh, monsieur vous c'est comment. Didier Diouf from Kër Ndiaye Lo. ah jëlal micro bi ñu photo la ak micro bi vas-y. <laughs> yooyu Didier Diouf la from Kër Ndiaye Lo. Mhm. maa ngi nuyu Kër Ndiaye Lo fan la nekkee. Kër Ndiaye Lo mu ngi nekkee côté Tëngéej. ok. Ah, yow DJ nga wala animateur nga. ma animateur la ci animateur laay sooy. ok kon doo xoos comme si muy def. damay xoos parce que si moo def ay cours quoi. su ma doon animateur yàgg di àndal. xam nga ma dem ba bëgg ko nag ba gars yi sax dañu naan yow xanaa animateur yëpp dañu lay gis souvent ngay ànd ak les PNG. gars tamit di ma gën a encouragé na la booy bis dama nga def DJ affaire DJ parce que am nga style bi animateur bi dama nga def ko. ma dem di def formation bi. bi ma demee bi. Euh, rek gars bi ne ki ma doon defal formation bi ni yow sama siège bi dootoo ci toggat parce que boobu PND li ñu doon def lépp lépp man maa ngi doon capté aussi yàgg leen di leen topp quoi ne ma yow dootoo fi toggat mm-hmm. dootoo fi toggat léegi da ngay dem direct da def émission direct defuma stage kii dafa bëgg liggéey bi de moo tax ma gis parfois ji nii ji bu xoosee ba sonn nii rek bu paree bu ne ku si topp rek moom day jóg <laughs> rek moom day jóg ñëw téye plateau bi waaye xoos ça veut dire quoi ku si topp maanaam ji bu téye plateau kii bi nii ah, ba animé nii ba sonn xam nga ñoom liggéey dañuy raam loolu connaisseur yi ñoo ko xam ji bu ne ku si topp rek moom day jóg <laughs> dafa bëgg animé day ñëw xoos non non même pas moom moom moom lépp moom la quoi moom tam borom baax la quoi macha allah gars yi ñu ngi lay siiw bu baax a baax te aussi xale yi bëgg nañ la quoi macha allah. ok on va donner le micro à, euh, au quatrième DJ animateur qui va se présenter nous dire il habite où aussi monsieur c'est comment votre prénom. Euh, DJ Lamine Sarr borom Sikkim bi. DJ Lamine borom Sikkim. waaw borom Sikkim bi le buteur maison. ok <laughs> di nuyu ñëpp euh, di leen euh, di leen ziar di di leen encourager aussi ah. <laughs> vraiment vous faites la fierté la fierté des animateurs la la fierté des DJ. ñu on est à la fois DJ et animateur wante baat bi moo moo gën a dem loxo bi quoi. ñu ci boîte de nuit yi di yëngu. Euh, tey suñ fi ñëwee nag c'est c'est tout juste pour que tey Sénégal xam ni le métier d'animateur le métier de DJ c'est un métier noble mm-hmm. te ñu bëri mun leen si tekki mm-hmm. tekki bi du lan mooy maanaam fulaax fayda mm-hmm. baat bi lu ñu may loxo bi lu ñu may tey tey mun naa ne événement mënul am événement bi nga xam ni tey du ñu bëggal jaam yi événement bu munti am ci monde bi animateur ngi ci biir DJ ngi ci biir kon tey nii on est un euh, on est pion central pion central boobu nag dañu dem ba xam ko loo tax ñu sos lii nii nii di ñaan yàlla nag mu gën a jëm kanam à part ça nii pare jëy neen pare jamais mayoon naa leen benn mhm. parcelle mhm. mayoon leen benn fan ca Médina mhm. tey géejawaay ñu niwaat beneen. parce que yow yaa dugaloon yow si animateur comme dab rek. yow yaa dugaloon euh, bii bi premier match bi. yaa dugaloon bii bi neen bopp indi neen coup franc. ok tey penalty yi sëriñ bi nee na penalty laa laa leen di may. penalty ngay dugal suñu paree rek dina ma neex. parce que tey dañu am renfort bu bees ah. lii yàlla bu mu jeex. kon moo lay paas ah. lii yàlla bu mu jeex. bu ma créé la benn penalty waa ji laal ma sama tànk ma bërëmu bërëmu Neymar <laughs> ko jël baal bi jox la nga toj kër gi. loolu day neex. ok alors ils sont là mesdames et messieurs voilà ces DJ voilà ces euh, animateurs ils ont un, un événement aujourd'hui l'événement c'est quoi c'est un match de football qui va opposer les DJ euh, ji ak ay mbokkam contre les animateurs pi ak ay euh, mbokkam géejawaay la est-ce que mun nañu wax rapidement fan la si géejawaay et tout. stade Yarem la à partir de vingt heures. vingt heures vingt heures ba vingt ñëpp l'entrée est gratuite. dañu ñëw rek c'est c'est des retrouvailles ku nekk am nga sa am nga sa public am nga say xarit donc on invite tout le monde hein, à travers les réseaux sociaux à travers vous aujourd'hui ah na ñëpp teew euh, c'est vraiment une retrouvaille de famille nga xam ni moom euh, dañuy béggee rek su boobaa ñi nga xam ni dañ leen di gis dañ leen di gis ci télé bi ñuy déglu ci rajo bi ngeen xool lu ñu mën ci terrain bi ok Janon Charlie. initiative bi c'est c'est très noble euh, tey est-ce que si football rek la yem seen seen seen seen ànd bi euh, le fait ngeen am benn group amical euh, des DJ animateurs du Sénégal est-ce que si football rek la yem wala yéen a ngi prévoir def yeneen acte et bon suñu amical bi mu ngi tudd ADAS. ADAS ADAS mu ngi signifier amical des DJ animateurs du Sénégal. ok waaw léegi nag lu taxoon ñu créer ko pour social. sociale bi nga xamante ne pour suñu frère DJ animateurs yi képp nga xamante ne nii am nga nakar wala danga feebar ñi def suñu participation di la ko jàppale wala bégte loolu moo tax ñi taxaw ci léegi di ñaan di woo di woote social la social la social la te dafa amoon suñu frère boo xam ne DJ Bouba. Gumba dafa daboon. lan dafa dawoon Gumba Gumba moo ko dab moo ko daboon quoi en fait. ok dafa jugoon animation. muy dem ci yoon bi gisatul quoi. gisatul gisatul waaw. Oh léegi nag ci lañ taxaw woo DJ animateur yëpp. Mhm. ñi mobiliser leen def groupe bi. gars yi vraiment ñi def seen participation ñëpp. ku nekk jàpp ci ku nekk jàpp ci. Mhm. tey macha allah mu ngi commencé di gis nànk-nànk. yàlla di ko nuyu au passage du ñuy mhm. di ko ñaanal yàlla. yàlla mu gën a am wér gu yaram mu delluwaat ci liggéeyam ak jàmm. waaw loolu moo taxoon ñu gënoon créer affaire bi sos affaire bi tey nag ñëw ba ñuy organiser ay match mm-hmm. première édition deuxième édition troisième édition mm-hmm. pour ñi gën a xamante suñu biir ñi gën a xamante tey yàlla def na tey ñun ñëpp xamante tey liggéey mm-hmm. animateur yëpp ñenn ñu ngi seetante seen biir ku nekk dem seeti sa morom ba tey match bi ñu ngi invité ñëpp di woo ñëpp ñi ñëw ba ci DJ yi nga xamante ne ni bokkaguñ ci association ci amical bi nañ ñëw ñi bokk ci foofu laa bëggoon ñëw euh, Jeannot am na ay DJ animateur ñu ngi seetaan ñu ngi naan euh, waa ñi ñu ñu li yëguñ ko woon non non le groupe est ouvert à tout le monde ah ok ba Kaolack ba Tambacounda Kaffrine fépp animateur bu ci bokk rek. pour ñu siiw ñi rek la wala ñoo soo siiwee créé sax mooy gën teg fa benn lien boo xam ne ko bëgg a dugg ci groupe bi nga dem. même DJ bu nekk koñam sax mun na si ñëw bokk mun na ci bokk. animateur mun na bokk. vraiment mhm. vraiment ñu ngi woo ñëpp animateur DJ bàyyiwuñu kenn. boo mhm. xam ne sentir nga sa bopp rek mun nga ñëw nga dugg ci groupe bi. xam nga dinañ créé benn page Facebook teg fa benn lien boo xam ne. Mhm. directement di nga mun dugg ci WhatsApp bi mooy gën a si tey comme que géejewaay la tamit te géejewaay ñëpp xam nañ ne Ngaaka Blindé fa la nekk. donc xam naa tey invité waaw invité la comme ça suñu ñu daal pour sang bi teg ko si digg stade <laughs> yaa ngi tooñ ayca <laughs> donc dañuy def tour de table rapidement. Jano yow y allez y mémorial Kizito bi. Euh, mémorial Kizito di Kizito dañ koy defal hommage moom ñoo tëgg fii cosaan yàgg ngi lay bëggee ne lañ xam. waaw 11 édition la 11 édition bi la. 11 édition la date c'est le 28 samedi 28 octobre. 28 octobre Inca big show lay ne. IMCA dinaa invité animateur team yëpp ah. DJ animateur. mooy samedi 28 octobre samedi 28 octobre. IMCA Bourguiba waaw mémorial DJ. ok sa numéro ñaata la pour ñu. 77 oui 640. 640 44. 44 46. 46 waaw. merci DJ Charles on est ensemble mon euh, Charlie euh, pour ñi nga xamante ne bëgg nañ bokk ci association bi amicale bi. Ah, ku su mel ni DJ Ous depuis Tamba moom nee gën a bokk si kii bi ah. est ce que mën nga ñu jox sa contact et puis nga wax sa mot de fin yow. waaw sama sama sama contact mooy 77. gars yi jël leen bu baax ah pour ñi nga xamante ne ay DJ lañ animateur la ñu ngi ñuy seetaan voilà. effectivement 77. oui 704. 704. 73. 73. 92. 92. waaw ok. donc mot de fin. sama mot de la fin mooy dina remercier vraiment TNG Toch maa ngi di remercier ci invitation bi ngeen ñu invité di remercier ñi nga xam ne ñoo nekk ci kër gi TFM. seen directeur caméraman yëpp ñu ngi leen di jaajëfal baax a baax baax di naan merci ci invitation bi. ki va gagner animateur ou DJ. yi ñooy gagné waat. waaw borom kër gaa yi noonu. chaque eh, jour rek leen jàppee saa kër bi borom sikkin bi. <laughs> non soo juumee ba ñëw samedi doo def weekend saa. <laughs> non eh ay caaxaan yi ñu leen bu garab bi dugalee ba pare rek juste après rek deux minutes. dañuy dugal. borom code yi daal mu ngi sedaat ayca tos dama dem ba Gambie. Ziggy Ziggy dama dem ba Gambie dem ba laa ñibbi si pour tëj. pour pour pour pour match la jox DJ. code 3 la jox ayca joxal ñu micro bi DJ Doumen. DJ Doumen waa PNJ Family ñu ngi lay seetaan euh, lan mooy sa quart final ak. tey vieux moo ay de cëb. ah bon daf ñu ko may. foog ñu invité ko tey. voilà Tom mot def fin yow euh, DJ Doumène ak lan mooy sa programme en dehors du match là. bon sama programme mooy benn demi-finale bu ñuy def euh, Tëngéej le 25 incha allah. benn finale la boo xamante ni artistes yu nekk ci zone boobu yëpp la Kër Massar Kër Mbaye Fall ba Bargny voilà demi-finale bi incha allah fee euh, Tëngéej. Tëngéej waaw allah fa lay xale Pape Sow xale maa ngi koy nuyu bu baax baax di ko siyaare. di waa Kër Ndiaye Lo yëpp cat ba cat. di wax nag état uh-huh. mu teg ñu yi ak DJ yi. mu recevoir ñu. gaa yi ñëw. parce que comme ni ñuy recevoir mbër yi di ko recevoir artistes yi mbalax maa léegi rapport yi tamit ñu parce que ñun tey jii concert bu neexee. concert bu neexee. gaa yi ñooy xoos. mariage su neexee bu neexee. bii mooy wax animateur yi ñooy wax batem bu neexee gars la. gars yi du def mariage loolu la ah. <laughs> en ñu koy talal loxo bu baax a baax a baax di ko wax mu gees animateur yi nu mu gën a gaawee na animateur yi yittewu nañ ko trop trop trop. votre contact Doumène. waaw c'est le 77. oui 671. oui 94 29. 94 29. waaw. ok big sama waa gàlle ñëpp cat ba cat ñu ngi may seetaan waa Kër Ndiaye Lo waa Tëngéej ah sama gars yëpp ah fépp waaye nekk rek Lamine Fall PNG family sama ñaari ASC ASC Jongul Bantul ak ASC Jàppoo de Kër Ndiaye eh merci pour l'invitation euh, merci à vous merci à la TFM Euh, nous, on est dans les boîtes de nuit, hein, plus précisément au My Club Iba Korea, le grand Iba Korea. Iba Korea, oui, à Westphal. Tous les week-ends, ouais. Tous les jours. Tous les jours. Tous les jours, on est là-bas. Toutes les nuits, on est là-bas. kon yow métti woon na pour nga ñëw fii tey matinal DJ yi du ñu nelaw. déggoo ma de ba tey nii nii nii naan naa sept kaasu café. <laughs> pour mun a kon Khadija foog mu comprendre loolu ne DJ yi du ñu nelaw. waaw mais après dañuy nelaw foo nekkee après dañuy nelaw incha allah alors di invité encore une fois tout le monde euh, à partir de vingt heures incha allah. Euh, terrain Ndiarème stade Ndiarème. Géejawaay vingt heures la Géejawaay à partir de vingt heures donc euh, di nuy waa Padois Builders waa Médina ah, fi ñu fi nga xam ne ñun fa la ñu juddoo waa Dionoir ah, waa Ouest Foire ñëpp mm. waa Rukuba yi Mamaay Dieng Thiam Fatim Seye ñoom Matar Thiam mm. Matar seen xarit MT MT ah, doomu day Ñang Baalo Momo Ndiaye ñoo ñëpp di béggee gaay yëpp ay ca numéro téléphone yow jàmm si ñëpp. waaw le numéro téléphone c'est le 77 501 73 31. 73 31. waaw merci beaucoup. merci lii yàlla bu mu jeex. ok donc c'est avec un son de titre de nu gis qu'on va clôturer l'émission Toch quel sera ton ton fin. waaw mais bu bëggee rek euh, di wax euh, yàlla may euh, victoire ñi nga xamante ni moo animateur yi victoire bu sedd guy parce que su ma ñëwee rek ñu dóor ñu dina dina am lu muy nduru quoi dañu naan yaa ñu porter poisse. di leen jox rendez-vous léegi léegi nii li xew ci la def yow ak Ndiaye man ak euh, Mary Bay. oui euh, ah Messi Messi Messi. Messi il va venir ah. <laughs> Dijé Messi day ñëw de. animateur waaye animateur ayca <laughs> <laughs> ji ton mot de fin vas-y. man léegi nii. Uh-huh. tey lii moo leen nar a duma. te deux bi laa nar a taal tey. ah Lamine yaa ngi dégg. deux mu lay menacé de. deux laa nar a taal. Khadija naa la tuddee benn bii ak sama copain Vieux Diouf. ayca jeex na. ok donc on remercie tout le monde voilà. ok donc euh, Ziggy nee na bi gën na yéega voilà donc. sec la nee na code sec pour Didier. voilà c'est super merci à lui Ziggy hein ça c'est l'ami fidèle de Djidji ji euh, borom naar bi alors merci. <laughs> borom naar bi waaw donc merci à Vieux moom moo doon réalisation bi merci à Khadija. Euh, chargé de production euh, émission yi ngeen di gis yëpp moom moo koy coaché euh, merci à Tanor tey suñu déggee baatu pi ji Toch ak invité yi moom la moo ko doon coaché merci à Awa moom moo doon gérer téléphone yi Eva xaalis man laa bind si sama portable ah, Eva xaalis. parce moom mooy teral gars ah, pour man Eva xaalis. teranga Sénégal mu ngi waaj a ñëw donc ah, euh, xaar leen ko tamit dina leen teral mok Pape ak la. Tafa the boss ñu ngi koy nuyu mu ñuy seetaan Tafa jaajëf waay. Tafa the boss voilà merci à notre caméraman Ibou moom moo ñu doon coachel euh, merci à tonton Jean bu Cosaan merci à Mami Infodo bu dëkk Almadi moom Almadi lay jógee uniquement. di ñëw seetaan si émission bi fii cosaan mu jeex delluwaat Almadies moom elle est fidèle elle est elle est amoureuse bien sûr de PNJ elle a un amour fou pour pour ses animateurs te loolu dafa rare nga am ay sop yoo xamante ne toppee wuñ la xaalis toppee wuñ la intérêt par amour donc mami bisous à toi merci à tout le monde c'est avec lui bandit di Nurol qu'on va clôturer l'émission on se donne rendez-vous samedi nous Weekend Star one love wamalu bandit yi niiroo lan moo lan moo